xabla wusulihim ilayna wa qina wakiiluna fi safarin wa xaddari anta wa anta xawsuna min darari mbokki jullit yi mbokki bi yi noo leen di wax salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaan gi Cheikh Muhammadul Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Xadim sun borom yàggal ko fi lool te mu wér ba mbooleem ay naalam ci lislaam mu yeggale ko te naal yeneeni naal te ànd kook jullit yépp rawatina taalibe yi noonu la ñuy mbooleem kilifaay diine yépp ñoo ngi leen di ñaanal suñu boroom yàggal seen taxawaay di nuyu bu baax a baax jëwriñu liggéey bi sëriñ Ibrahim waaye di ci toftal sëriñ Moor ak sëriñ Xaadim ak sëriñ Amar ñu yóbbaale mbooleem ñu topp seen ginnaaw xanaa ñu njëkkante ak waxtu wi rekk ci leen waxan ne nan ci fàttalente muy lu jëm ci wàllu siyaar walla wàllu àddiya wala wàllu xidma te ñett yooyu yépp boo ci seetantal rekk menn maanaam yi lay ame kon waxtaan bi dafay naka rek mënees na koo tënk ci bayit wa seexul xadim waxal ca waxan ca xasidaam gu siiw googee di xuqal bukaa u xalaa waxan ne tuubaali xabdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw xadiyaati seexul xadim daa waxam ne ajjana ñeel na jaam bi nga xam ne dafa doon ab murit te dëggal ci liggéeyal ab sëriñam walla mu sopp ab sëriñam walla muy jox àddiya ab sëriñam seexul xadim nee ñeen ñett yi képp koo xam ne boole nga ko wala def nga ci benn àjjana dey ñeel na la bam jiital nag mooy ki nga xam ne daa doon ab jaam nungu ne ab jaam la ndax doon ab jaam ba pare nungu ko yomb na ci ab dégg waaye lu jafe la lool kan mooy ki nga xam ne mooy jaam bi nga xam ne nungu na ko mooy ki nga xam ne gëm na yàlla gëm gu wér ci mbooleem nin koy gëmee teg yàlla ca palaas ba nga xam ne moom la yell waaye bu noppee mu doon koo xam ne murid saadix lay doon muri saadix nag moom it wax ko ci aw làmmiñ yomb na waaye doon ko lu jafe la lool murid saadix nag Seexul Xadim waxan na melo yi ne lii mooy li nga xam ne mooy xàjjale murid saadix ak ki doonoon muri saadix ndax gaañi léegi yombal nañ ko lool ku jóg rek ne murid saati na amaana gaan baax moo am na solo lool waaye fexe nag ba mela yu nekk ci yow moo ëpp solo moo tax seexul xadim waxan ne wasful murid tarkaxul iraada li wajhi may yafxalu ma araada man lam yurid zay siwa mawlaahu yusil lahu wa xayruhu awlaahu fasluk ala yaday murabbi naasix yaquudu lil ilaahi bin nawaasix fa man taxallaqa bi waasilin wasal wa man taxallaqa bi aksiin fasal Seexul Xadim daa wax ne li xajjale murit saadix ak ki nga xam ne doonul murit saadix mooy koo xam ne lépp lu muy def du ko tànnal boppam waaye day dëppook li nga xam ne moom la ko sëriñam tànnal waaye loole ku sëriñam tànnal day dëppook sunna yonent bi waaye mooy koo xam ne du bëgg lu dul ngërëmal suur mborom tabaaraka wa taala xam ngeen ne dem ci yàlla te jaaroo ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënta nekk waaye dem ci yàlla te amoo ab sëriñ it mënta nekk moo tax Sayxul Xadim wax ne da ngay wut sëriñ boo xam ne moo lay tarbiya moo lay tarxiya moo lay tasfiya waaye moo yegg yeggale ci sunu borom tabaaraka wa taala ci jubal la ci di la teg ci xam-xam di la wommat ba nga yegg ci sunu borom tabaaraka wa taala waaye xam ngeen ne bu la waxee ne ab sëriñ rek daa am sëriñ boo xam ne moo mën a yóbboo ci yàlla ak sëriñ boo xam ne mënta yóbboo ci yàlla xam ngeen ne sunu jamonoy tey ñiy woote ne ay sëriñ nan ay sëriñ lan bari nan lool waaye seexul xadim dalaa wax ne bu fekkee ne dangaa bëgg a yegg ci yàlla kat na nga wut sëriñ boo xam ne yegg na ci yàlla ndax boo ajoo ci koo xam ne eggut moom du egg te du la eggal loolu mooy famantaxal taxallaqa bi waasilin wasal waaye waman taxallaqa bi ak aksiin fasal boo ajoo ci àgg di ku àgg di nga àgg waaye boo ajoo ci koo xam ne àggut du yàgg ba nga àgg ba ca topp mooy dangay nekk koo xam ne ab jullit àqan ngay nekk dangay nekk muumin nekk muslim nekk muxsin loolu day boo ko defee saw doxin ci yoonu suñu borom tabaaraka wa taala dana rafet moo taxan sayxul xadim wax ne kun muminan wa musliman wa muxsina in rumta sayran lil ilaahi tax taxsana da dangay doon jullit bu wér waaye di wëyaali santaane yàlla yi ci kaw suuf waaye da ngay wëyaali sant yàlla yi ci kaw suuf nga nekk koo xam ne danga koy rafetal lépp looy def rek suñu borom tabaaraka wa taala tax kon mu des baatub xidma te xam ngeen ne xidma mën nañ ko tuddee àddiya waaye xidma ci jëmmam daa am ak fay addiya ci boppam dafa am ak fay waaye siyaar ci boppam moom it dafa am ak fay nga xam ne bayit wi andi na addiya na xidma andi na siyaar siyaar dañ koy fiire aw bi xubbin ndax koo sopp rekk doo ko siyaar moo tax liggéey sëñ Tuubaa bénéfice yi dafa bari njariñ yi dafa bari bon la doon laaj lan lan moo ñàkk bénéfice man nga ciy génne liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa moom bénéfice bi foo ko romb rek we foo ko takk rek romb na ko kon moo taxan Seexul Xadim wax ne képp koo xam ne liggéeyal nga ko walla nga siyaar ko suñ borom dana la musal waaye dana la jéggal say bàkkaar loolu seexul xadim mi ngi ko wax ci maddabul nii wa kullu man xaddamani aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara daan ni képp koo xam ne bëgg na ma mu dellu ci baatub képp koo xam ne maanaam ku sopp seexul xadim seexul xadim nee na képp koo xam ne sopp nga ma wala nga jeng jëm ci man sun borom tabaaraka wa taala dana la wër wërsëgale ak jub waaye dana la wër wërsëgale tamit alal loolu tamit dellul ci say nii wa kullu man ahabbani aw maala ilaya farsuqu ilaya farsuqu hudan wa maala waaye képp koo xam ne seexul xadim nee na ŋàññi nga ko wala nga yedd ko yàlla yow maa ngi lay ñaan na ko jéggal maa ngi koy maa lay ñaan nga may ko ak tuub kon léeg-léeg di nga gis koo xam ne ak ñàkk xamam dana tax muy ngàññ seexul xadim wala mu koy yedd waaye kookee seexul xadim daa wax ne yow yàlla day kooku nga xam ne ñàkk xam moo tax mu may ŋàññi wala mu may yedd maa ngi lay ñaan nga may ko ak tuub bu tuubee rek xolam dana sell dana mën a ñëw ànd ak man ci li may liggéey wala dana mën a rafetlu sama liggéey loolu mooy wa kullu man sattamani awlaama fa hablahu tawbata wastislaama waaye li nga gis koo xam ne tamit day ñaaw njortu lool jëme ko ci seexul xadim ak ci aw yoonam ak ci ñoñam gis ngeen ko fii ñu toll ci jamono kenn ku ne di wax di jëmale ci seexul xadim wala di jëmale ci seexu muntaqa wala di jëmale ci yoonu murit wala di ko jëmale ci kenn ci murit yi waaye seexul xadim nee na képp koo xam ne njortam ñaaw na jëme ci man yow yàlla maa ngi lay ñaan nga wëlbati xolam ba mu jublu ma wala nga wëlbatil ko xolam loolu mooy fa kullu man adaa zannahu biya falyaqallib xalbuhu ya rabbiya nga gis ne kon sopp seexul xadim ak liggéeyal ko ay njariñam bari na lool bu fekkee ne hadiya la wala bu fekkee ne siyaar la noonu la ko seexul xadim ñaane képp koo xam ne siyaar si ma yàlla nanga nga ko jéggal na ko defal mbooleem lu mu bëgg xam ngeen ne siyaar tamit lu am solo la jamono lum xat-xat wala lu jamono mitti mitti nit ku ne kamu sopp rek da ko war di siyaar da ko war di liggéeyal da ko war di addiyal bis bu ne boo demee ci xasida googu di raiya seexul xadim ma ngi koy wax di wax naan surman tuhibbu wa in chattat bika daar wa aala min dunihi saalun wa awhaaru laa yamnaannaka bu'dun min siyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu sawaaru seexul xadim nee na ki nga xam ne danga ko sopp te yàlla tax siyaare ko sori gam sori bu mu tax nga bañ koo siyaare doonte ay xur moo dox seen diggante wala ay suuf yu kekke moo dox seen diggante nee na looleekat bu mu tax nga bañ koo siyaare ndax siyaare googee njariñ rekk moo ca nekk bu ko defee mu des aw xaddiyaati muy baatub àddiya addiya mbokk yi xam ngeen ne lu yàgg la ci lislaam bu ne àddiya dañ koy moomale murit yi waaye addiya moom yàgg na ci ak jullit ndax xam ngeen ne Seydina Ousmane ni mu amee daraja ak tawfiix yi nga xam ne am na ko ak cër bu màgg bi mu am dara mayu ko lu dul àddiye joo xam ne moom mënoon na koo joxe moom Ousmane Ousmane nekkan ci jàmbaar yi nga xam ne cër bu mu am rek àddiye moo ko ko may ndax lenn ci xare yi yonente bi alayhi salaatu salaam dafa woone woote woon xare waaye boo xoolee fa ca Aliou tax fa ca Ousmane taxe mooy wàllu finance te mooy addiya nga xam ne lu baree bare ci alalam moom la Seydina Usmaan jox yonente bi alayhi salaatu salaam ngir ñu def ko ci xare boobu nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam wax na keroog seere ci Seydina Usmaan ne Usmaan moom kunu mbaa yàlla la kunu mbaa yàlla mooy koo xam ne yàlla toppatu ko dara lan moo ko may loolee addiye joo xam ne Seydina Usmaan joxe woon na ko Seydina Usmaan moomu addiya jural na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam fanaan ci ab deram wala fanaan ci jàkkaam di ko ñaanal ngërëmal sun borom tabaaraka wa taala baatan nabiyu ila fajrin yoruumu lahu riddam minallaahi saa tafdiilu kubbaaru nga xam ne addiya jooju nga xam ne Usmaan joxe woon na ko jural na ko njariñ loo xam ne seexul xadim nee na bu ëllëgee Seydina Usmaan dana ràmm juróom-ñaar fukki junney nit yoo xam ne sawara yeyeen na leen ku sawara yeyeen nag mooy koo xam ne àtte nañ say jëf ba nga xam ne yow moom dem sawara rek moo des ci yow nga xam ne amul dara lu lay waaye Seydina Usmaan Seexul Xadim na wa fihi qaala annabi Usmaanu yasfau fi sabxiina alfan wa naar nga xam ne juróom ñaar fukki junne yi nit yoo xam ne danoo war a dem sawara addiye ji nga xam ne Seydina Usmaan joxe woon na ko tax na yàlla may ko sañ-sañ boobu nga xam ne bu ëllëgee ban àtte jaam ñi Usmaan dana dem tibb ci juróom-ñaar fukki junne yoo xam ne sawara lan war a dem mu mu leen yóbbu leen àjjana la ko ko may mooy addiye ju mën a joxe. bokk na ci njariñu addiye joo xam ne Usmaan amee na ko ci malaayika yi dañ koo rusan ngir lan addiye joo xam ne Usmaan mën na koo joxe. nga xam ne njariñu àddiya boo ko doon takk kenn xamut fu mu yem seexul xadim leeralal na ko boppam ci njariñul àddiya seexul xadim daa wax ne fal àddiyatu tajsibul muridiina ila saada wa huluwil maqaamaati wa kasratul maali wa tuulul umri wa mahabbatu naasi ilayhi wa sabqil aqraani wa adami ruxyatil malakayni wa suratul wa duxulil jannati bi xayri xisaab wa an laa yara fitnata al xabri wa yanju min akli duut wa xayru saalik seexul xadim daa wax ne bokk na ci njariñal àddiya day xëcc ci murit bi di ko yóbbu ci texe te xam ngeen ne am murit moom wala ab jullit li mu bëgg mooy texe texe mooy dem àjjana ci gàttal loolu mooy njariñ bi njëkk ci àddiya day xëcc murit bi di ko yóbbu ci texe waaye waxulowil maqaama day kawel ay maqaamaam nga xam ne képp koo xam ne dangay ngay joxe addiya say maqaama day kawe say daraja tamit day kawe lool fa sunu borom tabaaraka wa taala waaye day kawe lool fa malaayika ya waaye day kawe lool fii fi àdduna waaye wa kasratul maal képp koo xam ne da ngay joxe àddiya sa alal day bari bu ngeen gisee ñi nga xam ne ñoo daq joxe addiya ci sunu yoon wii kenn tanewu leen kenn ëpp leen kenn ëpplewu leen waaye ñeewuñu kenn tamit waaye wa tuulul képp koo tamit deel joxe addiya seexul xadim ne bokk na ci njariñi addiya kuy joxe addiya rek saw day gudd lool waaye bokk na ca wa mahabatu naasi ilayhi képp koo xam ne day joxe àddiya nit ñi dañ lay sopp te dun ko tey fi mu ne kuy joxe addiya te yàlla tax nu man di def rek nit ñi dañ koy bëgg nit ñi dañ koy sopp lii ñuy wax bës boo ko bëggee am del joxe addiya jërul ngay dem ci ab sëriñ mu lay bindal ak ndomba jërul ngay sangoo ay saafara jërul ngay sangoo ay saafara jërul ay sunguf jarul dara saxal ci àddi yi rek te àddi ji doon dëgg xalaa guli al moom nit ñi dañ lay sopp ba duñ ko tey loolu mënta ñàkk waaye boo fekkee ne wa sabqil aqraan bu fekkee ne da bëgg a jiitu sag maas raw ñi nga tollool jamono del joxe addiya seexul xadim nee na ku joxe addiya day raw ak maasam waaye wa rufiyatul malakayni fil qabri képp koo xam ne day joxe addiya tamit malaayika yi nga xam ne ñooy laaj ci biir bàmmeel duñ la laaj muy munkir ak nakiir te mbokk yi lor rek bu fekkee mooy njariñul addiya doy na sëkk ndax ñaari malaayika yooyu siin ak raglu doy na kéemaan mbooleem kun dugal ci biir bàmmeel ba nga juddoo ñaari malaayika yooyu dina la laaj li nga daa jëf li nga daa wax li nga daa liggéey ci xaalis foo ko jëlee foo ko def sayxul xadim nee na kiy joxe addiya nag ñaari malaayika yooyu du leen gis waaye wasurhatul jawaas ala siraat ki nga xam ne day joxe àddiya tamit day jéggi siraat ci jégginu gaaw mbokk yi siraat tamit dégg ngeen ni ko borom xam-xam yi misaale te nan ko misaale rek noonu la demee ndax alxuraan ko tudd yonente bi alayhi salaatu salaam wéral ko seexul xadim leeral ko kon loolu kenn mënta wax ba du am léegi nag di nga dégg wax yoo xam ne ñu naan diw dagg na siraat ak dajj na siraat ak lu alxuraan wax sunna wéral ko loolu kenn amul darajaay dindi ko li am kay mooy kenn ku ne sa jëf nga fay jaare seexul xadim nag nee na képp koo xam ne joxe nga da ngay joxe addiya sa jéggi siraat day gaaw waxul ne doo fa jaar déedéet dafa wax ne wa sunatul jawaas ala siraat day gaaw sëriñ sàmbay bu ngeen koy dégg da naan ñii dañuy gaaw ba mel ni melax ñii mel ni ak fit ñii mel ni kuy watatu kenn ku nekk na sa jëf rek noonu nga koy jéggee waaye seexul xadim moom li wax mooy kuy joxe addiya sa jéggi siraat day gaaw lool waaye bi xayri xisaab kuy joxe àddiya da ngay dugg àjjana te kenn du la regle mbokk yi xam ngeen ne fitna yemut ci biir bàmmeel dong fi mu ne bu nu yeewoo jëm bis pénc ba balaa kenn dem sa génn kër dees na la taxawal laaj la mboolem loo ma sa wax ak loo ma sa jëf loo ma sa am ak foog a def balaa kenn nay dugg àjjana moom dees na la laaj loolu seexul xadim nag nee na képp koo xam ne day joxe àddiya kenn du ko regle moom da ngay ñëw rek ñu ne la demal sa kër ak àjjanaa ngee wa xam ngeen ne bàmmeel tamit bokkul nekkul ne ñaari malaayika yi dong ñoo fay sonal jaam bi déedéet biir bàmmeel am na ko ne wax ruumaan kooku balay balay balay munkir ak nakir di ñëw ci lay ñëw kooku ak ragaloom tamit kenn xamunum toll kooku tamit kuy joxe àddiya doo ko gis xam ngeen ne bàmmeel fitna ya bari na lool mbugal ya bari na lool waaye seexul xadim nee na kiy joxe àddiya moom day mucc ci fitnaay bàmmeel waaye wayan juumin akli duut wa xayra saalik seexul xadim nee na ki nga xam ne day joxe àddiya sax yi nga xam ne ñooy lekk nit ki ci biir bàmmeel kiy joxe addiya sax yi duñ ko lekk kon mbokk yi xam ngeen ne addiya li ci nekk ci ay njariñ seexul xadim nee na li anna al adiyata al waahid yujsa isna asara alfan wa huwa wa huwa al aqallu wa fi saalik wa fiha aksaru min saalik mimma laa yaxlamu illa allah illa allahu malikul muluk haasa wa jàlla seexul xadim nee na benn dërëmub àddiya bu nungu yàlla dana ca fay fukki junni maanaam fukki junni ak benn ci benn dërëm dërëmub àddiya bu nangu ba ci yàgg seexul xadim bu daal di wax ne li nekk ci njariñal àddiya daal sama làmmiñ mënu koo tudd sama xalima mënu koo bind ku yàlla tabaaraka wa li nekk ci njariñal àddiya xamoo ko kon njariñu addiya moom yàlla rek suñ boroom tabaaraka wa taala moo xam li ciy njariñam xam ngeen ne suñ yoon wi tamit doon yoonu murit mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak seexul xadim rawewuñ fenn lu dul addiya jun doon joxe ak nangoo liggéeyal gu nangoo na liggéeyal seexul xadim ndax seexul xadim nee na inna allathina saarahu li xidmati fa lahumu diyaaru wasatal jannati ñi nga xam ne dañuy gaawantu di ma liggéeyal xooluñu guddi yu xooluñu ngoon yi xooluñu dëkk bi xat na xooluñu dëkk bi xatut xooluñu sedd na seexul xadim nee na liggéey boobu ñu may liggéeyal la ma leen cee faye mooy wasatal jann maanaam fa lahumu diyaaru wasatal na ay njënd yoo xam ne ci digg àjjana ca lay nekk waxut waxut ci wet gi waxut te jeexantal ba wasatal janna nga xam ne maanaam àjjana moom ci digg ba ñiy liggéey Sëñ Tuubaa foofee la ñuy dëkk képp ku mas amub cër tamit ci seexul xadim liggéeyal ko jox ko addi rek ca nga ko amee xam naa ne liñ waajalan bari na waaye dañ ci tànn menn mag rek moo xam ne lu mu am addiya ko may mboolem ñi àndal ak seexul xadim liggéeyal Sëñ Tuubaa ak addiya moo taxan ñu am lu luñ am waaye dañ ci tànn kenn andi ko ci jàmbaar yooyu ku nuy wax Seex Maxtaar Mbay Keere moom liggéey bi mu doon liggéeyal Sëñ Tuubaa ràññeeku na lool ndax seexul xadim daa wax maanaam Cheikh Makhtar mbay Kéré ay taalubeem danoo masa dajaloo ñoom ñëpp defar ko ay lal yu rafet daal di ko koy andil bin ko ko indilee Cheikh Makhtar daa woo ci mag ñi ay taalube daal leen di yanu leen lal yi bu ngeen demee njaareem ngeen joxal ma ko Seexul Xadim daal di woolu ay lawbe ku ni wax maam ma saw ak yat ma saw ak wareelu saw daal na leen duggal leen ma ci àll bi ngeen wutal ma gal bant yoo xam ne dana mën ay lal ñu def ko ci te ngeen jël lali weñ yii dem joxal ma ko seexul xadim seex maxtaar mbay keere mas nan koo andil maanaam ay taalibeem ba tey mas na noo dajaloo daal ne seex maxtaar mii kat war naa am woto war naa am ak waruwaay daal di dajale bay ay tool ba mu nekk ab lim ñu ñëw ne ko seex maxtaar danoo bëggan kat nga dem wuti wota ndax ci gàttal fi mu ne daal aajo nga ko daal léegi ñu ñu daal di def noonu takk xaalis bi def ko wenn say jox ko Seex Maxtaar mu ne kon nan dem Dakar wuti wuti woto waaye ñu jaar njaareem bin jaaree njaareem di siyaare ku tedd ki fekk Seex Maxtaar moom jël na xaalis boobee jox ko Seexul Xadim addiya bin génne mu ne leen nan leen dellu keere mbay wala nan leen dend fenn ci ci ci dëkk yam dëkkan taalibe yi ne ko ala xaalis bi mu ne xaalis bi kat jox naa ko Seexul Xadim addiya nan dëppaat delluwaat kër ga ñu dëppaat ban demee ca dëkk ba ñu leen di wax naa leen ala oto ba xanaa dañ leen a bindal délai wala dañ leen a bindal kayit Seex Maxtaar xamal leen man dey du ma wut warawaay woo xam ne man dong damay war ñi ci des di dox def naa ko waruwaay woo xam ne bu ëllëgee yow mal xiyaam fa warukaay wu mënta ñàkk foofee laa ko soxlaa te man Maxtaar Mbay Kéré soxlu ma dara ci àdduna lépp lu ma am rek Seexul Xadim laa ko jox mas na ni romb aw nag woo xam ne nag wu rëy la kenn ku ne di yéem Cheikh Makhtar ne nan ma xaymaal nag bi ndax lépp loo xam ne lu ñuy yéem la kat Cheikhul Khadim rek moo ko jago ñu wax ko ko mu nekk lim bu bari Cheikh Makhtar Mbaye Kéré jënd nag woowee dem jébbal ko Cheikhul Khadim nga xam ne addiya yooyu nga xam ne moom la daa jox Cheikhul Khadim moo tax mu jural ko ay maqaama ak ay daraja yoo xam ne yoo kawe la lool nga xam ne bi Cheikhul Khadim jóge ci géej gi mag ñu bari danoo nam man Cheikhul Khadim ñëw korétee si njaareem ngir namm ko seex maxtar bokkoon na ca mag ñooñe bi nga xamee ni ñëw na seex maxtar bi julli jotee julleeg korite gi sëñ tubaa daa woo sëñ Malick Ndiaye lantinoor ne ko waxal mbooloo mi waxal fere yépp nee leen maxtaar mbay tey mooy jiite julleeg iit gi ba mu jiitee julleeg iit googee ba noppi seexul xadim daal di woo seex ba mu jiitee ba pare mu ba nit ñi waar leen seexul xadim woo sëñ Malick Ndiaye lantinoor ne ko waxal bisab tey jiite yi képp koo xam ne gis na Seex Maxtaar Mbay Kéré yaramam araamal sawara nga xam ne keroog mag ngi dañ doon jébbalu ñii di siyaare ñu mujj yi wut ak tóoj bang bu yëkkati ku teg ko ci ngir ñëpp mën a barkeelu keroog Seex Masàmba Mbàkke jox na ko junneeb dërëm ngurdu ak garaamu ak garaamu boo xam ne dañ koo daamine ba mu rafet ngir barkeeloo ko ci ndigal loolu nga xam ne Seexul Xadim joxe na ko li ko may loolu mooy addiye ju mën a joxe moom Seex Maxtaar Mbay Kéré ba korite googee jàllee gàmm ga nga xam ne moo ca topp Cheikh Makhtar daa dikkan ànd ak mag ñi nga xam ne gàmmoo si nan jaareem ban ñëwee moom seex maxtar bay Kéré àndaale woon na addee ju takku nga xam ne ñaari junne dërëmi ngordu la ak ñaari téeméer waaye benn gàmmoo ba ci suba gi Cheikhul Khadim wax ne Makhtar bay Kéré ak ñi mu àndal nan dem ca keesu ñeenteel ga ñu xaar ma fa ba mu ñëwee ba Cheikhul Khadim fekk ko foofe Cheikh Makhtar jébbal ko addiye jooje Cheikhul Khadim tibbu ñaari loxom yi tedd ya ak suuf ba mu fees mu jox seex maxtar ne ko téyal seex maxtaar téye mu daal di tibbaat ne ko téyal mu téye mu daal di tibbaat ne ko téyal mu téye ba muy ñetti yoon see Serigne Touba wax xamal ko seex maxtaar mbay keer ne ko ëllëg yow mal xiyaam day lu sa mbooloo bari bari bari sa këre àjjana dana des lu toll ni feppi suuf yi nga xam ne la ko ko may mooy nungoogum nungoo joxe addiya ak nungoogum nungoo war liggéeyal seexul xadim kon liggéeyal seexul xadim moom tiyaabaam ak fayam kenn xamut fu mu tàmbalee waaye kenn xamut it fu mu yem doy na ci sëkk seexul xadim nee na la si na daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu yow yàlla na nga faj aajo yi képp koo xam ne sax na dima liggéeyal waaye na nga faj aajoom waaye na ko jéggal ay bàkkaaram waaye na ko defal lépp loo xam ne ak bëggam la kon liggéeyal seexul xadim njariñ yi yaatu na lool kon mel na ni li ñu joxati waxtu mat na min alsalaami atlubu salaama bilqaaidil munji wal istiqaama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu